attiré ci moom. Mm-hmm. loolu teel a bokk. Mm-hmm. mais dañ koy ñaanal. Mm-hmm. Euh, bàyyi ko borom bis bi ñu xam ne moo tax moom muy def jëf bi. te boobu ci feeñ. yàlla na suñ Tuubaa ko boppam. Ah, aar ko sàmm ko ah, ndax fu yàq yëpp. nee naa tiit dara bu ragal. man si saali bu maa ngi sa ginnaaw ci côté ñaar lépp nag. Ah, dara bu ko tiit bu ko ragal. incha allah yàlla dana la fay incha allah. sëriñ Sall sëriñ Sall tentang aku menjaga ini dan semua kan dia maju semua kan dia ini dia berbak dan yang itu ini ndax xam nga suñ bam rek ko ñaan ak talibé li ak baye fall la aw doxinam amin allahumma fa yàlla ñun gis na ne yaa ngi liggéeyal sëñ Bamba Xaadimu Rasuul bëgg nañ nag ñun ci suñu jëm nga jàppale ñun bu baax a baax a baax a baax waaye kii sëñ Bamba lay liggéeyal loolu nag mu def defal ko handicapé Sénégal yëpp ngir sëñ Bamba Xaadimu Rasuul dama bëgg ngeen ñaanal ko mu yëg ko ma yëg ko ndax nag ambassadeur la boo xam ne dafay taxawu ñëpp rawatina nag yéen ñii waaw waaw kon nag ngeen ñaanal ko bu baax ba li mu bëgg a liggéeyal sëñ Bamba Xaadim Rasul mu defe ko ni mu ko bëggee. waaw waaw waaye dama ne. Hmm. ku def lu rëy. Ah. ñu wax ko dama ne mu. mosu koo wax mosu ta toog ci télévision ba ne jënd naa ay nag mosu ta toog ci rajo ba ne jënd naa ay nag déedéet hmm. ñun rek ñoo koy wax nag yaa ngi ni bari lool mu def ko leen addee sëñ Bamba Xaadim Rasul jox ko njabootu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul bi na man ab Baay Fall laa kan moo woote sama sëriñ woote sëñ Bamba Xaadim Rasul kaay leen ngeen sant la ma suñu borom kaay leen ngeen sant la ma suñu borom man Wally nag ab taalibe laa